jàng xul yaa ayyuhal kaafiruun jàng xul huwallaahu ahad lu ci nekk juróom-ñaari yoon aay yu ci nekk des na ko ci bindal aw yiw te dana mel ni itam ku saraxe ni dinaar te lu mu ñaan yàlla mu may ko ko te des na ko bindal itam tuyaaba jutal ne li mu bisi àdduna bi yépp te xaraf wu ci nekk it des na ko ci tabaxal pale bu rëy àjjana yi ku ci bëgg yeneen leeral dellu ci xurratu ayni bu sëriñ Sañ bu Mbàkke page 143 yaa xayra ataa bil bishri wal madaa